centre de karaté bi nga xamante ni nguuru japon moo ko jagle la état du Sénégal nekk li nga xamante ni lu karateka yi yàgg xaar di ko rafetlu bu baax. Euh, donc depuis 2019 lañ ñaanoon euh, ambassade japon pour mu nekk suñu interlocuteur au niveau du gouvernement japonais que dañ soxla woon benn centre euh, pour fu ñuy tàngat tàggatee suñu xale yi. pour mu mieux préparer Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xam ne Sénégal moo koy organiser. donc bi ñu échangé lu bëri finalement gouvernement japonais accepté ko. donc jox ñu financement bi bañ def réalisation ba tey ñu ñëw fii. jëwriñ bi ñu dénk wàllum tàggat yaram di xamle rek jéego bu am solo la ngir Sénégal retrouver place am leader ci niveau africain. te lii dinañu permettre ñu tà tàggat suñu xale yi bu baax a baax a baax te dina taxaat dina permettre aussi karaté bi mu delluwaat fi mu nekkoon avant mën a ñëwaat. Euh, ci kaw parce que bu ñu xoolee pays yi nga xam ne ñoo ñu jiitu au niveau africain ñooñu au niveau mondial sax ñoom ñoo raw donc boo bëggee ñooñu nga xam ne ñoom ñooy say concurrent au niveau international au niveau africain nga dab leen il faut nga def comme ñoom ni ñuy def. centre bi am ay jafe-jafe ci wàllum ndox ak courant ki fa teewal jëwriñ bi ñu dénk wàllum tàggat yaram di xamle rek dinañ ci def li war. centre bi nag bi ñu fi ñëwee gis nañ ni am nañu problème ndox ak problème courant. mais loolu dafa fekk centre bi dafa fekk stade bi nekk en travaux stade bi dafa nekk en travaux stade Léopold Sédar Senghor dañ ciy liggéey liggéey boobu su demee ba euh, pare incha allah stade bi mooy jox centre bi courant ak ndox donc ministère aussi pare na pour accompagner fédération ci lépp parce que tey Sénégal dafa bëri ay discipline sportive centre bi féete foofe ca stade Léopold Sédar Senghor mu nekk jéego bu am solo rawatina ci période waajtaay jeux olympique ndaw yi Mohamed Mokhtar Diop di xamle rek dinañ tabax centre d'hébergement ngir gëna a ñoŋal pàcc boobu